Kajoor Actu li ci yene kay ak mbay joon dal leen ak jàmm defaraat leen toogaay médecin boobu di fala pay fat ñetti doom yi ci Sacré Cœur bu ndakaaru bu paré xaru top jam autopsie bi nak xeyna di leral mom fala pay namu faté domam yoyé yooyee yene kay bi di l'observateur mu ngi ñuy xamal ne ginnaaw bañu ñu autopsie bobu paré gis nañ ne mom fala pay daf dafa xoj ñetti domam yoyu rek bañu ñu faatu kii di dom ji gor ji di mohammed pay mom fekk nañ ay jam-jami paaka ci yaram ba ci la cala soo ko wëlbateku rek mom fala pay jël ëpp paaka dag ay sëddiitam rek ba jaaré fa ñak ba kanam yéene kaay bi di ñu xamal ne tago gi mu tago ak jabaram jewon mo jur musiba momé moomee ubbil kay bi di la tribune mo di ñu xamal ne bu ñu deful ndànk rek rewum Sénégal mëna boy ndax politiciens ñom ci seen bir ñoo yor seeni xaalis sa war a di ci bir rew mi jamono ji tëkkonte ba ak danga santé ba mu nga melni ni tulleeg màlle te ci wéru mars wi ñu passé rek la fa ay manifestation yu metti amoon rek ba nit ñu bari ñak ci seeni bakkan ñu bari belee sa ci ay yaqku yaqku yu bari tamit am ci bir rew mi yene kay bi di ñu xamal ne ñu ngi jup ay élection rew mi commencé di yëngu waat yene kay bi di ñu xamal ne xal ya fi nekkon ci weeru mars ba tey ñu ngi suulu ci biir doom bi yéenekaay bii di Le Quotidien nañu tey ji ci àllarba ji la Barthélemy Dias di wuyu ji ci tribunal bu Ndakaaru ci lu jëm ci affaire Ndiaga Diouf moomu faatoon ci atum 2011 waa coalition Yewwi Askan Wi bu ci mel ni Ousmane Sonko Khalifa Sall ak Malick Gakou ñoom nee nañu Barthélemy Dias du wéet ci xeex bi te woon nañu askanu Sénégal ngir ñu ñëw defa mobilisation rek gunge ko moom Barthélemy Dias foofee ci tribunal bu Ndakaaru waaye waa bi ndax kii bi ne leen ëpp leen ne bu ngeen fi yëkëté fitna ñun tamit dañuy jaakarlo ak yeen ba mu saf lu ngeen fi indi ñu tak ci rëpp ña tak rëpp nak té xamuñu fu ñuy sate ji ñoo di borom faux passeport diplomatique yi di Mamadou Sall ak Boubacar Biaye ubbil kay bi di La Tribune Mamadou Sall ak Boubacar Biaye ñom ñori nañ seen balani kiiraay ya ñu ci assemblée nationale ngir rek ñu dem wuyu ji ci tribunal ci wal passeport diplomatique yi keneen ka ñu japp ci mbirum faux passeport moy camerounais bi di wuyoo ci turub Guy Béya ubbil kay bi di Libération mom Guy Béya da doon défar ay faux passeport diplomatique fii ci réewum Sénégal rek ànd ci ak ay sénégalais di yóbbu ay nit bitim réew di leen jaarale ci aéroport international bu Blaise Diagne moom Guy Béya yoon teg na ko loxo démb ca fa mu dëkke woon foofee ca Maris ñu dem ci wàllu tàggat yaram ubbil yéenekaay bi di sunu lamb mu xëy di wax ci combat Balla Gaye ak Bombardier bi ñu war a premier janvier yéenekaay bi di samp laaj ne ndax Bombardier mi am ñeen fukki at ak juróom Eumeu Sène daanoon ko kii di Pët xel na rek yaa def erreur bu mag a mag jërë ngeen jëf